ok incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bu jëkk ci suuratu zalzala ida zulzilat al ardu zilzalaha alhamdulillah والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين di yee salaat sant suñ boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñuy nekk ci am néegam di fas yéene jàngub téeréem ci biir chahru ramadan al mubarak yooyu nekk ngëneel ci biiri ngëneel mi naan borom bi nim ñu ci dëppale yal nañu ko nangul al nañu booleek boolem ñi nga xam ne dañ koy dégg ak fu ñu mën a nekk ak ñi nga xam ni ñoo leen koy jottali mu may ñu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira yàlla dogal na sun bisub tey bi mooy ñaar fukkeelu fan ci chehru ramadan ci mille quatre cent quarante trois na am muy wone ni su jant bi sowee rek loolu ñuy tuddee al ashrul awaaxir di fukki guddi yu mujj yooyee day daal di tàbbi ku ne war ko bàyyi xel rawatina lu aju ci qiyaam yi nga xam ne day am ci jàkka ji te ñu koy amal fii incha allah kon su dee ne Cheikh Ousmane pare na incha allah mu jël lañu suñu bind bu jëkk
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم suñu borom mu ne إذا زلزلت الأرض زلزالها wax waxtu woo xam ne suuf dana nekk di yëngatu la nga xam ne mooy yëngatoom nga wa axrajat al ardu asqaalaha suufit daa di génni la nga xam ne moo ko diisaloon wa qaala al insaanu ma laha doomu aadama keroog dana wax ma moom suuf lan moo ko ñeel yowma idin tuhaddisu axbaaraha bisu keroog day la suuf di nettali la nga xam ne mooy ay xabaaram bi anna rabbaka awhaa laha ndax sa borom yàlla daa wax yu jëm ci moom yowma idin yasduru nnaasu ashtaata bisu keroog day doomu aadama yi dañ génn doon ñoo xam ni ñu teqlikoo lañu li yaraw li yuraw amalahum ngir ñu won leen la nga xam ni mooy seeni jëf fa man yaamal misqaala zarra képp koo xam ne jëf na lu toll ne zarra la ca arab xamoon mooy sanqaleñ yi gën a tuuti ci sanqaleñ yi tonte ni am nañu koy delloo ci ay pënd poussière loolee bu ko defee xayran di aw yiw yarahu dana ko gis wa man ya'mal misqala zarra koo xam ne da nga def lu toll ne zarra boobee charran ci lu bon yar yarahu dana ko gis mbokk suñu borom day wax ci loo xam ne mi ngi suñu kanam mbokk suuf bi ñu toog mbindaa fanu yàlla la suñu borom yàlla moo ko bind bokk na lu scientifique yi di wax soo ko doon bëtt tey ba yëgg ca dëkk ba ca digg ba day mat six mille kilomètres ca six mille kilomètres yooyu yëpp dañ naan dix kilomètres moo ci dul sawara waaye la ci des lépp sawara la suñu borom mu ne dañ ko yëkkati dóor ko mu mokk benn mokk kon isa zulzilat mooy bañ ko yëngal la nga xam ne mooy yëngalam nga suñu borom ci beneen aaya mu ne ya ayuha nnaasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim e waay nit ñi ragal leen yàlla yëngu yi am bis penc lu rëy lay doon day tax ba ña nga xam ne dañ ko fekki da dañuy jàpp ne ñii dañoo màndi te borom bi mu ne moo ne day man di wuñu wa ma hum bi sukaara walakin azab allahi shadid yëngu googu suuf di yëngu suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne nee na kerooge dana ko sant mu génne la ko diisaloon ca bokk na ca looli lépp luñ mas a dugal ci moom ci ay néew te julit da ngay gëm ni ñun ñëpp suñuy cosaanu suuf la woon suñu bay aadama ci suuf la ko yàlla bindi looloo tax ni suuf mel lañ mel am ci ñu weex ñi ñuul ñi xonq ila axiri ñun ñëpp dañuy dellu ci suuf quel que soit loo mën a dee gaynde moo la lekk da nga lab ca géej ga explosé nga kaw asamaan lum mën a doon say jeexital suñ borom da koy delloo ci suuf heure boo xamee ni nii soob na ko nim ñu binde woon suñu biiru yaay yi ñu nekk ay toq mani yu moo bind ñu ñu nekk ay mbindaa fan yu génn noonu la ñuy bindaati ci biir suuf doomu aadama yépp daa di nekkaat ay nit ci biir suuf suñu borom yàlla subhanahu wa taala bu joxee ndigal israfil mu ëf doomu aadama yépp a génnandoo doomu aadama yi génn ba keroogee doomu aadama dana yéemu ci suuf ndax la nga xam ne moom lay gis ci ay mbir yu miinul woon ba tax mu naan moo suuf lan moo lan moo ko ñeel tey ba mu mën a def lii suñu borom yàlla nee na bu keroogee day netti lii xabaaram ya rasul sallallahu alayhi wasallam ne xabaari suuf mooy lépp lu ab jaam masa def ci kawam dana ko nettali loole mbokk doon loo xam ni lu lu tiitlu la sunu maam ya gëmoon nañ ko amma ñun dañ ko dund mbokk li nga xam ne mooy lii tablette nga koy tuddee portable am lu mën a doon matière yi ko defar yépp ci suuf la jóge am déet suñu borom yàlla xelal doomu aadama ne ko soo demee matière telle matière telle boo ko assemblée dana mën a génn luy filmer di jël ay son loolu lépp ci suuf la cosaanoo suuf soosu nag nga yëg ko nga bañ koo yëg looy def ci kawam mi ngi lay filmer mi ngi lay enregistrer looloo tax ba ki xellu fu mu mën a nekk ci kaw suuf États-Unis am kër baayam Allemagne am këram fu mu mën a doon day xam ne mi ngi ci suufa si yàlla si ragal yàlla fu mu mën a toll yeneen bi alayhi salaam dénkoon ne kenn ca ndaw ña mi Muaz ibnu Jabal ittaqillaha haysuma kunt wa atbi'i sayyi'a hasanata sayyi'a tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ay Muaz maa ngi lay dénk foo mën a nekk nekk faak ragal yàlla soo juumee ba def njuumte gaawal def loo xam ne dana ko lu baax lu ko far ngir place ba nga taxawee def mooy yàlla place boobu it seedewaat ni jam bi de moyoon na yàlla sama kaw place sangam waaye tuuboon na place sangam mooy nga bañ ko yeexi te foo nekk ngay nekk ak nit ñi ci jukko ju rafet loolee suma bilal joxe ndigal bokk na lu yonent bi alayhi salaam doon wax nee na aji noddukat bi nodd fépp fu noddu gi yem lu fa nekk ci xeer ci garab ci ndox ci lu mën a doon dana taxaw seedeel ku ko yomal qiyaama loolu muy wane na kon suuf lépp aji seede la garab yaag montagne yaag ndox yaag lépp lu nekk ci kaw suuf nga looy def defal jàmm loo def dana ko seede yomal qiyaama gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala mu ne li waral lii ngir sa borom yàlla moo ko waxyu ñu mel ne rek borom portable bi su demee mën nga ko laaj waaw ndax mën nga ñu génneel tafsiru démb bi mun a ah kay manipuler génne la tafsir bi tafsiru daaw nag mun a ah kay manipuler génne la tafsiru daaw suñu borom yàlla it naka noonu yowmal qiyaama lay agsi na suuf depuis doomu aadama bi wàccoon ci kaw suuf ba ba keroog muy dellu ci kaw suuf suuf nettalil ko lépp loo xam ne defoon na ko borom bi nag mu ne nit ñi bu ñuy génn keroog dañuy teqalikoo dañ teqalikoo ci seeni jëf dañ teqalikoo ci seeni jëmm seeni jëf mooy ña nga xam ne ñoo baax ñoom ñooy ànd ña nga xam ne ñoo bon ñoom ñooy ànd ku nekk ka nga mingool moom ngay àndal mi ngi noonu borom bi am na fi mu wax naan wa kuntum azwajan thalatha ngeen génn am al muqarrabun ànd ashabul yamin ànd ashabu shimal ànd waaye itamit ànd boobee it àndum mbooloo la waaye àndum teqalikoo la tubaab da koy tudde four solitaire mooy mbooloo lañu doomu aadama yi génn ñaata milliards lañu doon allahu alam mille milliards lu ëpp mille milliards yàlla xam waaye ashtatan ku nekk sa mbir bopp moo la itteel doo gis kenn ku lëng yaayam wala koo xam ne day lëng doomam wala ñaari xarit yu lëngoo déedéet ku nekk sa mbir bopp ngay ngay ngay lijjanti ashtatan ku nekk nag yaa ngi dem di xaar ñu won la la nga xam ne moom nga defoon ci kaw suuf mi ngi noonu ku nekk di xaar ñu indi la sab téere su ko defee téere boobee su dee jox nañ la ko comme ni ñu ko jàngoon ci saar yi passé da ngay gis ne loo mas a def ci lu baax du ca bàyyi dara waaye loo mës a def ci lu bon du ca bàyyi dara keroog say-say si dañ yéemu ndax jàppoon nañ ni la leen di xaar mooy bàkkaar yu rëy yañ defoon waaye ndekete la gën a néew lañ doon xeeb suñu borom bàyyiwu ci dara ba da ngay gis ku naan ah ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha loolee mbokk mu ñuy jàngal yewit góor góorlul ci bul xeeb lu baax góorgóorlul ci bul xeeb lu bon mi ngi noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na ba ni ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra xoolal benn benn tandarma nga jël ko baaxee ko mbokkum julit loolu dalay dugal aljanna bal rasul sallallahu alayhi wa sallam génn na ñëw yaay Aïcha ne ko sànq day benn soxna la fii ñëw ànd ak doomam ay ñaari doomam ma jox ko ñetti tàndarma loolu kon desu ko xeeb ñetti tàndarma desu ko xeeb ci sarax ñetti tàndarma laa ko jox nee na mu jox benn doom bi tàndarma jox benn doom bi tàndarma bi muy bëgg a lekk benn bi xale yi profité lekk seen tàndarma bi mu waroon a lekk mu xar ko jox ki genn wala jox ki genn wala jóg dem musul tàndarma ji bi mu ko waxee yonente bi alei salatu wasalaam yonente bi salaam ne ko tàndarma boobu yàlla dana ko ci tabbal aljanna gis ngeen looloo tax bul xeeb lu baax ndax xamu ci ban jëf la yàlla di gërëm xam ne lii lu sell la ba tabbal la ci aljanna ci loolu la ñuy wax koo xam ne ci ndox mu mayoon xaj ci la ko yàlla tabbale aljanna contraire bi it na ko doon bul xeeb yonent bi alayhi salaam nee na nit ki dana wax benn wax jàppul sax ne wax na dara wax boobu yàlla mere ko ci tabbal ko ci sawara ba faw gis ngeen lépp looy wax bul xeeb lépp looy jëf bul xeeb bu dee lu baax bul xeeb bu dee lu bon bul xeeb yàlla na yàlla nangul ñu lu baax ya te jéggal ñu bon ya mi ngi noonu Cheikh Ousmane
bismillahir rahmanir rahim wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير barakallahu fikum suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dabha ma ngay waat kay yay daw di xeexat lu ëpp ci mufassiroon yi ñu ne fas yay jihad la ci jublu donte ne am nañu koy firee gileem ya wal muriyaati qadha ña nga xamee ne ni ñoom ñooy génne lii di ferñent ya ca xeer ya ñuy dóorante mi ngi noonu annaara la ci tuuroon fal mughiraati subaha ak ña nga xam ne ñooy bettaate ci suba fa asarna bihi naqa ñu daal di cay tasaare la nga xam ne mooy pënd bu ànd ak sawara naqa fa wasatna bihi jamaa ne dem ba digg doomu la nga xam ne mooy mbooloo ma muy mbooloom yéefér ya inna al insana li rabbihi lakanuut doomu aadama day la ñeel boroomam aji ko baadoola la mooy il est ingrat koo xam ne ni du ko du sant du sant yàlla wa innahu ala zalika la shahid te moom day ci loolu ku ko seede la wa innahu li xubbil xayri la shadid te moom day ngir bëgg aw yiw lu ca tar la afala ya'lamu idha bu'sira ma fi al-qubur ndax moom xamul heure bu ñu demee ba jàllar bi génne la nekkoon ci biir xol ci biir qubuur ya muy bammeel ya wa hussila ma fi sudur ñu daal di daal di génne feeñal la nekkoon ci biir dënn ya inna rabbahum bihim yawma idhin la xabiir seen borom yàlla day bisi keroog ku ñàkk kumpalay doon ci ñoom mi ngi noonu mbokk julit gis nañu ne diine ji suñu borom daa bëggoon mu nekk diine doole ndax mbokk borom doole moom moo mën a tasaare dëgg tey ji da ngay gis occidentaux yi li ñu bëgg mooy li ñuy tudde nouvel ordre mondial mooy adduna bi dafa am doxin bu mu war a doxe doxini démocratie doxini seen gisin ñoom mooy liberté pour ñëpp loolee nag lan moom moo koy dooleel mooy kattan gi ñu yor au nom de la démocratie ou bien de leur démocratie ñoom ca la ñu daaneel Kadhafi ca la ñu daaneel Saddam ca la ñu attaqué Afghanistan ca la ñu nangam parce que ñoom noonu la ñu gisee islam nag daa bëggoon jullit ñi ñoom amoon doole doole joojee ñu jëfee ko ci woote ci yoonu yàlla goreel doomu aadama yi ci nooteel gi leen ña leen yilif di noot fexe leen ba tabbal leen ajjana gannaaw bam leen yemele loolu nag borom bi subhanahu wa taala dafa waxoon yonente bi alayhi salaam ca jamonoom wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribati alxayl turhibuna bihi aduwa allahi wa aduwakum fexe leen lu ngeen mën ci kattan ngeen dajale ko rawatina nag la nga xam ne mooy ay fas ba tiital noonu yàlla bi nga xam ne mooy seen noon ca falilah alhamdu rasul sallam noonu la defoon tàggatoon ndaw ña ko wëroon ñu tàggat leen ci jihaad mu leen doon jàngal ne mboolemi fo yi ñuy fo caaxaan la lu dul koo xam ne xanaa da doon foog soxnaam wala koy fo di entraîné fasam wala koy fo di entraîné wu ci sànni loole seen limba néewoon na waaye empire yi gënoon rëy yi yi ñu dajale woon les romains yi ak perses yi daawuñu nelaw ngir ñoom fas yooyu di jihaad nag la borom bi di de tagg fii wal aadiyaati dabaha mooy fas yooyu ñuy dawal seen dënn yi di riir te ku xam ay course fas xam ne fas bu demee ba ah am allure dënn bi day riir moom la borom bi wax dabaha xeer yi nga xam ne nii dañ cay jaar rawatina montagne arabe bi saudite yi nga xam ñëpp ay xeer la force bi ñuy dóore xeer yi xeer yi buy dal ferñeent yi day génn day gis cavalerie bi buy romb dañuy gis ferñeent yi day génn ci tànk fas yi gis ngeen ndax doole bi ñu àndal ak ajur bi ñuy àndal borom bi nee na ñooñu nga xam ne ñooy bettaate ci suba ci rasul sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na technique de guerre am toujours bu daan attaqué bu jëlee fajar ba pare lay attaqué moo tax borom bi di wax feneen fa iza nazala bi sahatihim fa saa sabahu almunzarin heure bu wàccee ci seen ëtt ña dana ñaaw suba ñooñu nga xam ne dañ leen a waar ñu ñu ñu ñu tee bañ rawatina nag giiri arab yi bi yonent bi alayhi salatu salaam amee kàttan ñoom ñëpp dañ ñëw ku ne ñëw ne man juli tuub nañu ku ne ñëw ne tuub nañu am ci ñu dëgg woon am ci ñoo xam ne dañ doon tappale rasul sallallahu alayhi wasallam da doon wax armée islamique su ngeen demee ca dëkk ba na ngeen des ca àll ba déglu suñu dégloo ba jant bi fenk dégguñu fa benn nodd ñu attaqué leen xam ne dañuy caaxaan kon gaa yi nekkate nodd dafay aar ab dëkk de ñu ngi noonu nodd day aar ab dëkk da ciy indi sécurité comme ni muy dàq shaytan suñu borom subhanahu wa taala nee na suñu ñëwee ci dëkk ba ba roofaloo waa dëkk ba dugg ci seen biir mbooloo ba mooy fa wasat na bihi jam'a pënd ba ñuy génne ak la nga xam ne jaasi yay dalante day génne pënd ak sawara ca loolu itamit da nga imaginer rek te ji masalan lu mel ni ghazwat qadisiyya bi ñuy wax julit ñi trente mille yéefir yi cent mille xoolal cent trente mille roofaloo jaasi yi dal xeej yi dal mbokk loolu pënd boobu boo ko boo ko dandee xam ne li lu yéemale de ndax borom bi subhanahu wa taala ne tagg leen ci pënd baag sawara bay génn yépp teewul kenn dawul ñoom ñépp ñu ngi roofaloo ak biir noon yi te musul am ci geerul islam baba sahaba ya jeex benn xeex boo xam ne yéefir yi deux fois rek lañu ëpp jullit musul am musul am guerre bu ñu mës a xeex ak ñoom rek ñii nga xam ne ñoom ñooy yéefar yi ëpp nañu leen au minimum trois fois gis ngeen gazawatu Uhud yéefar yi trois mille lañu woon jullit ñi nekkoon sept cent sept cent mi ngi noonu gazawatu Badr yéefar yi mille lañu woon jullit ñi nekkoon trois cent mais teewul dañoo ànd roofaloo ci seen biir xeex poussière bi génn ñu muñ loolee borom bi lan lay waat ci li lépp mu ne doomu aadama moo ñàkk sant borom te mbokk doomu aadama ba xoolee fi yàlla jaar ak moom ci toq maniyu defar la si biiru yaay ba nga génn ngay ràmm lay assister ci kattanam di la roof dose say waajur yi la jur xamuñu ban heure ngay màgg constat rek ngay màgg di màgg ba toll na sa bàyyi mu jox la wërsëgam nga fudd lekk bu fudd taxaw ne jërëjëfe sëñ caam yaay baadoo la am déet doomu aadama ma baadoo la moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne suñu borom nee na mag doomu aadama ñi ngi ci mbir bu mag may bind ñu jaamu keneen may xéewal ñu sant keneen man yàlla rek may bind ñu dem jaamu keneen man rek may xéewal ñu dem di sant keneen jërëjëf diw jërëjëf diw keneen ku dul yàlla jalla wa ala mbokk loolu la ko nuut baadoola nga waaye baadoola bis boo demee da nga xam lan mooy pro baadoola borom boobu subhanahu wa taala ne te loolu moom lu ko seeda la ay seede na ko ci xaalam te mooy doomu aadama ku ko xam xam fi mu fi yàlla jaar ak moom xam ne bu santul yàlla rek baadoola la mi nga ne bu santul yàlla rek baadoola la loolu seede na ko ci jëfam seede ko ci ay ay waxam bu dee yéefar ba borom boobu it subhanahu wa taala bu ñu waxee lii len yow it la loo ci mën a dégge te waaye yow it bul nekk baadoola xamal ne yàlla la bind bul jaamu mukk keneen ku dul yàlla xamal ne say xéewal ci yàlla la jóge bul sant moo ko keneen ku dul yàlla noo koy sante nangul ne mooy xéewal xéewal yi jël ko delloo ko ci fi neex borom bi sant yàlla lii mooy sa waru gar yow doomu aadama borom boobu ne na doomu aadama dafa tar ci ni mu bëggee aw yiw alxayr mooy alal mi ngi noonu wa taraka xayraan képp ku dee ci yéen taraka xayraan xayri muy muy alal doomu aadama daa bëgg alal bëggul alal la taxoon alal jóg mbokk alal lan moo taxoon mu jóg mooy pour faj say soxla ak faj soxla yi jaami yàlla yi la jege mais doomu aadama daa bëgg alal en tant que bëgg alal boo xam ne da koy jël rek di denc dana ñëw ca kanam tuuti ci waylun li kulli humaza ba ñu deme dem ba tubaab bi indil ñu lu doy waar may nga dégg koy féete milliard am ndax daw leen dégg loolu naan diw day féete milliard am wañ ñi ne wañ ñi ba nee na am na milliard tey su fekkee premier milliard nag ah boobu nag lay doog a dal sos nag yaa ngi dégg boobu lay doog a gis nag ne man je suis un bas doole nekkati un milliardaire en en en franc CFA nu muy méngoog un milliardaire en euro un milliardaire en dollar lim yor matul sax asaka lay koy yor su ko defee milliards yooyu dana ko permettre muy tukki di dem ci hôtel yi di gis ñoo xam ne moom li mu yor matagul sax seen asaka loolee mbokk kon ëpp naa def ab jullit day bëgg alal ngir jubluwaay la alal mën a jur waaye jullit moom du bëgg alal rek ngir denc dajale cent millions un milliard dix milliards vingt milliards di dajal rek dajale boo xam ne wóor na le doo ko lekk abadan moom la sun maam yi daan xutba ci xutba yoo xam ne ñun bi ñuy xale mokkaloon nañ ko ndax imaam yi benn xutba boobu nag la ñu xutba année bi yëpp mooy tajma'una ma la ma la ta'kulun mu ne tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun yéen a ngi fi nekk rek di tabax loo xam ne du ngeen ko dëkk ji dajale alal ju ngeen dul lekk boo ko xel nanguwut loolu xel mu rafet waxuma sax diine mais xel nanguwut loolu rawatina yow mi dëkk dans un pays pauvre comme le Sénégal nga jël ay milliards yóbbu banque suisse yóbbu BNP yóbbu feneen yóbbu feneen loo xam ne nii wóor na la ne yaakaaru am problème ba cay tibbi da ngaa bëgg jël di yokk doo dee bàyyi ko fi doo ko jëriñoo kenn du ko jëriñoo borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ndax xalaatul kiy def loolu kiy jël alal di ko dence noonu ndax xalaatul bis bi muy dekki ndax xalaatul bis bi muy dekki suñu borom taxawal ko mu def yaramu neen yaramu neen ana alal ji ndax alal jooju mu dencoon dans les banques bi muy dekki da ko indaale laa du dekkaale xatta benn dollar wala benn CFA yaramu neen ngay dekkaale waaye it ñu génne li nekkoon ci biir dënn yi waajee nga xam ni yëgul woon ne yàlla moo koy xéewal ba santul yàlla yëgul woon ne daa war a jaamu yàlla ba ma nga jël xolam wékk ci leneen bis buñ génnee li nekkoon ci biir dënnam ya muy shirk di rëy di kufru ku mel noonu day borom bi nee na bu keroogee sa borom yàlla dara du ko ump ci say mbir donte ne yàlla moomee xatta jamono bi ngay dund nii dara ump ko waaye loolu aw tëkku la bu la yàlla di tëkku ci ne loo mas a def ci kaw suuf keroog suñu borom yàlla dara du ko ci ump mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
bismillahi rahmani rahim alqari'a malqari'a وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بارك الله فيكم suñu borom subhanahu wa taala mu ne bismillahi rahmaani rahim alqaaria la nga xam ne mooy fëgg malqaaria lu lay xamal lay fëgg wa ma adraka malqaaria gannaaw ba lu lay xamal lay fëgg yawma yakunu nnaasu kalfaraashi almabsuus bis ba nga xam ni nit ñi dañ mel ne léppa lépp yu ñu tasaare wa takunu aljibaalu kal ihni almanfuush lii di montagne yi mel na leen boo xam ne dañ koo ëcc moom it mu doon luy tasaaroo fa amma man saqulat mawazinu képp koo xam ne diis na ay peeseem fa huwa fi aishatin radiya kooku de ma nga ci dund gu ñu gërëm wa amma man xaffat mawazinu waaye képp koo xam ne woyof na ay peeseem fa ummuhu hawiya kooku de yaayam da koy wallu mooy sawara sa hawiya wa ma adraka ma hiya malu lay xamal loolu lu ma doon naarun xaamiya sawara la boo xam ne bu tàng jëri la mi ngi noonu mbokk suñu boroom lii di alaxira utal na ko tur yu ñàng njëri doomu aadama yi ragal ko waaye ni ñu leen koy waxe daa iman soo dëkkee dëkk yu mel ne sénégal xëy na de man ngaa xemmeem jëm ci yàlla waaye ragal yàlla moom doo ko def ndax àjjana moom commandé nañ ko c'est fini ñëpp àjjana lañ jëm mbokk loolu njuumte la suñ borom yàlla bokk nu lim tagg ci jaam yu jëkk ya yonentee ba ci suuf walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun julit ñi ñoom dañoo ragal mbugalum yàlla yi ngi noonu xoolal ki nga xam ne moo nekkoon sangu tabiin mooy xasanul basri ci xam-xamam ba ci lañ ko xame woon ci ragal yàlla taalibe mi gis nañ ko muy jooy jooy yi metti na ko waaw imam xasan lu xew mu ne waaw su dee dañuy dem yowmal qiyama nag suñu borom ne malaaka yi jëleen xasanul basri yóbbu leen sawara te moom laa yusalu amma yafaal kenn du ko laaj lu tax kon bu kere gënu may def gis ngeen loolu moo tax ba julit day ragal mbugalum yàlla borom bi moo tax mu ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannata ki ragal mbugalum yàlla ajjana lay jëm mbokk alaxira bu ñuy rëng-rëng ba fay am explosion boobu fay am borom bi tuddoo ko qaria nga xam ne dana mokkal montagne mokkal suuf mokkal asamaan day fëgg xolu doomu aadama yi ñépp tiit jinne yi tiit malaaka yi tiit amul kenn kenn kenn ku dul ñoom day tiit yowmal qiyaama suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne fëgg googee dana def nit ñi ñu tasaaroo mel ni ay njéeréer lu tax mooy kenn xamul foo jëm kenn xamagul li sa soor doomu aadama yépp génn ci bàmmeel yi nekk des milliards et des milliards suñu borom yàlla waxugul dara ñépp nekk seen tiitaange mabsuus borom bi nee na même montagne yi dañuy mel ne lenn mu ngi noonu comme coton rek ci gàttal bu ñu bu ñu tasaare borom bi nag nee na keroog daañ peese nit ñi seeni ja se seeni jëf ñu borom dina indi balance bi si penc ñu woo doomu aadama yi kenn par kenn ku nekk ñu peeseel la la nga xam ne mooy say jëf la ca baax ak la ca bon lépp loo def ci lu baax am na poids bu méngoo ak moom loo def ci lu bon am na poids bu méngoo ak moom bi ñu xoolee sa jëf yu baax moo ëpp yow àjjana nga jëm yal na yàlla boole ñu ci bu sa jëf yu bon ëppee it mi ngi noonu suñu borom nee na mi ngi jëm sawara sawara boo xam ne haawiya la haawiya mooy lu ñuy rot di dem nga xam ne man nga caa dem yon ci bari satu wasalaam nee na buñ jëloon xeer bi gën a rëy montagne bi gën a rëy ci kaw suuf ñu bëmax ko ci biir sawara dana def soixante dix ans ca du yegg ca ca ca ca xóotaay ba gis nga yegg fu mu jëm haawiya borom bi nee na kon amul kenn ku koy dimbali ku dul hawiya te bokk na nature bi yàlla def ci doomu aadama day gis ponkal moo xam ne nii mat na cent cinquante kilo ab sac ñu jàpp ko buñ koy dóor man wuy sama ndey fan la ndey di ñëw bu ndey ñëw lu mu ci man fekk ndey ji dee na bu yàgg loolu it moo tax arab yi dañ daan def loolu su ko defee borom bi nag ni ku lay mën a yërëm yowmal qiyaama kenn la muy sawara mooy su yërmaane bi gën a rëy mooy sawar sawara la gaa yi na kon kon kon mbugal ma kenn xamul nu muy demee loolu it moo tax mbokk borom xel lépp lum gis day diisal balance am ngalawaay na ci nekk bokk na ci loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul lenn lu gën a diis te balance bi si penc lu mel ni jukko ju rafet yàlla na yàlla rafetal suñuy jukko te jukko ju rafet mooy jukko ju dëppoog alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na soo déggee benn mbokk jullit faatu nga dem fekkee fu ñu koy jullee suñu borom dana la may poids boo xam ni dana toll ne jabalu uhud boo xam ni dana dolleeku ci say jëf yowmal qiyam soo fekkee fu ñu koy rabe dana la may beneen poids bu toll ne jabalu uhud loolee nga teg ko ci sa balance yowmal qiyam loolee ñu bàyyi ci xel bu baax rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ni lii di kalimataan خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن mi ngi noonu ñaari kaddu mi ngi nii yoo xam ne nii saqilataani fil mizan ñaari kaddu ngi nii yàlla da ko bëgg lool ca mu woyof lool ci lammiñ te diis gann ca balance bis penc subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi subhanallah alazim dans une minute nga def ci 50 te yonent bi sam ne noonu li diis ca balance bis penc bal am na fu mu wax naan walhamdulillahi tamla'u almizan julit wax alhamdulillah bu mu jëlee ci xolam xam ne mboole mi xéewal ci yàlla kese la jóge te yàlla moomu dong yeyoo sant ku mel noonu tamla ul mizan mi ngi noonu noonu la ñuy bégale ci la ilaha illallah bu sell bu amul benn shirk nee na benn waay dina ñëw yowmal qiyaama ñu génn ay jëfam téere yi ñu ko bind mi ngi nekk ay sijilaat ay volume volume volume yu dul jeex bu ko malaaka yi tegee léegi ñu xool daanaka ay jëfam gis ñu sax jëf bu baax waa ji mu ne ah ay yàlla yàlla yàlla yërëm ma mu ne ko waa am nga fi benn jëf bu baax daa di koy génneel benn bitaaqa mooy daanaka rek benn benn benn benn feuille bu ndaw rek benn kii bu ndaw mu ne ay yàlla lii lu mën a bu jotee ak ak volume yëpp suñu borom na ko waaw baax na malaaka yi bi ñu ubbee bitaaqa bi fekk ci la ilaha illallah biñ ko tegee ca balance bi la ilaha illallah gën a diis mboolem la mu defoon ci lu bon loolit mbokk julit nga la waay fiir leen ci seen pas-pas bokk na lu gën a nekk musiba rawatina suñu réew yàq pas-pasu doomu aadama yi doomu aadama yi njaaloo du leen tey dem àjjana riba du leen tey dem àjjana leen dong ma leen tey dem àjjana mooy shirk shirk billah heure boo xamee ne góor-góorlu nga ba sa xol bii wéetal nga ci sa borom jalla wa ala yaakaaroo ku dul moom sukkandikoo ku dul moom xam nga ne yàlla dong muy aji bind yàlla dong muy aji jaamu loo mën a def foo mën a jaar suñu borom dana la mës a yërëm tàbbal la aljanna yàlla na yàlla wéral tawxid suñu xol musul ñu ci lépp lu koy yàq
bismillahi rahmani rahim alhaakum التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم سنبرم مني ألهاكم التكاثر itteel na leen barile xatta gën a barile xatta zurutumul maqabir ba ngeen dem ziyaare seen bammeel ya kalla sawfa taalamuun déedéet xel sa ngeen a xam summa kalla sawfa taalamuun gannaaw ba déedéet xel sa ngeen a xam kalla law taalamuuna ilma alyaqin déedéet tey bu ngeen xamoon xam-xam bu wóor la tarawunna aljahim sikk amul ci ne ne da ngeen gis jàkkaarloog sa waras jahim summa la tarawunnaha ayn al yaqin gannaaw ba da ngeen ko gis ci bët boo xam ne bët bu wóor lay doon summa la tusalunna yawma idin an naim gannaaw ba des na leen laaj keroog ci mboole mi xéewal yi ngeen xéewaloon mbokk suñu borom day wax doomu aadama yi dara taxul ma bind leen lu dul ñu jaamu ma wama xalaqtul jinna wal insa illa li yacbudun waaye la ëpp ci doomu aadama yi loolu taxoon ñu ñëw ci kaw suuf am na leneen lu leen itteel ca mooy takaasur takaasur ku gën a bëri la alal takaasur ku ëpp xam-xam takaasur ku ëpp diplôme takaasur kan mooy gën a réussir sur le plan politique takaasur ci sport takaasur ci lépp loo xam ne ni wàllu lu ñuy xëccoo ci àdduna la doomu aadama yi am na ci ñoo xam ni jaral na leen ñu jox ci seen bakkan seen temps noono kañ war a noonoo ak yépp bari na li may wax toujours mbokk yi mooy ku nekk ci yéen na ñaan yàlla politiciens yi li leen seen politique jaral sa diine jaral la ko man day damay rus ci sama kanamu borom ndax xam naa ne politiciens yi li ñuy def ci seen politique defuma ko sama diine gaa yi politique moo moo leen di jaral ñu xëy def benn tournée nationale wër quatorze régions Sénégal yépp am déet fu nañu dugg fa fee ñu def fa ñu yuuxu leen sànni leen ay xeer buñ paree ci loolu porte à porte kër gu nañu dugg fa génn seen xaalis génn ay meeting noonoog ni ñu war a noonool du ñu yendal guddi du ñu yendal bëccëg rien que pour parti bi mbokk loolu mooy takaasu fexe rek ba doon ko gagné am ma yow mi nga xam ne yow julit da ngay xam ne sa priorité mooy sa diine lépp loo xam ne mooy ngañaay mooy yankam ci sa diine lépp loo xam ne yaa ngi ci dugg day doon lu yokk sa diine lépp luy waj delloo gannaaw sa diine yow doo dugg ci loolu te itamit moo ko xam nañ ne takaasur boobee doomu aadama doo dem ba réussir ci mukk julit day jëli xikmaam fu mu ko mën a jëlee suñu mbokk Mouhamad Sibi yal na yàlla dolli ñëw dolli ko ko ma ñu doon nettali ne ko nu Côte d'Ivoire ma ñu doon nettali mu ne ufeet douane yi ufeet douane yi ab yéefar la woon mais nag bokkoon na ci ñu gën a réussir ci kaw suuf li tax ma wax ci kaw suuf président de la république la woon milliardaire la woon mi ngi noonu église bi gën a rëy ci Afrique moo ko tabax ci Côte d'Ivoire ci xaalisu boppam faa xaalisu réew mi lu mu daan wax def ne day xam leen ne adduna ab course la du nag course de vitesse course de fond la te nii na course bala ñoo xam ku gagné dañuy yegg ci arrivé bi am déet da koy xamee te nee na personne n'arrivera kenn du yegg ci ci arrivé ba képp koo gis mu ngi kër kër yi lu mu jot rek mu ngay yuutu leneen yuutu leneen ba dee dogaale ko moo tax borom mu ne xatta zurtumul maqabir day kër kër yi kër kër yi jëkkante ba dee dogaale ko na ko fii nga mën a yem su ko defee nag heure boo xamee ne nii dugg nañ ca bàmmeel ya c'est fini léegi doomu aadama yaa ngi noonu la nga doon kër kër yi ak ña nga doon kër këril muy njaboot ga ah lépp woon nañ la gannaaw tey loo dese say jëf jeex na loolu la mooy la nga xam ne borom xel bu la war na koo xam la yonente bi alei salaam wax ñett moo la séq say ñoñ sa alal ak sa jëf boo duggee bàmmeel alal ja ak ñoñ ña dem ña ngay xëccoo ko séddoo reyante xeex pour la nga fàgg woon yow ñu bàyyi la si biir bàmmeel donte ne li yàlla wax zuurtumul ma ma ma maqabir moo ko kuy def ziyaara di day day masa dema ah kay muy wone na kon bàmmeel du saxuwaay bàmmeel jaaruwaay la kese borom bi nag ni yow mi nga xam ne xëccoo alal adduna nguuruk adduna paluk adduna tax na ba mu itteel ci sa sa diine ji xel sa ngaa xam mu baama ko wat ne xel sa ngaa xam tey bis bi ngeen demee ba xam nag ilmul yaqin lan mooy ilmul yaqin mooy tey saw alaxira ja ngeen doon dégg tey yaa ngi nii di gis yaa ngi nii di ko dund mi ngi noonu yaa ngi gis yaa ngi di ko dund dafa am lu ñuy tuddee ilmul yaqin ak aynul yaqin ak li ñuy li nga xam ne nii moom mooy xaqul yaqin mi ngi noonu amma ki nga xam ne dafa am ilmul yaqin mooy tey wóor na ko na sawar bi ma doon weddi mi ngi nii àjjana ma nga nele borom bi nag subhanahu wa taala ne keroog ngeen di gis sawara gisee ko ci bët boo xam ne nii bëtu yaqin lay doon keroog nag la ñuy laaj doomu aadama xiiwal ya ko yàlla xiiwaloon mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala lum la xiiwal dana la ko dana la ko laaj yowmal qiyaama rasul sallallahu alayhi wa sallam génn na bis ci madina dajeeg Aboubacar ci mbedd bi Aboubacar lu la génne ayum yàlla yónni wala xiif rek moo ma génne xiif mu ne ko mañe de xiifa ma génn ñu dox tuuti dajeeg Omar Omar na waaw yoon bi ngeen ñu dox na ah xanaa day moom dëkk bi metti na de xiif te boo ko jurit loolu buñ la ko waxee xolo suñu ay Aïcha nee na kër ga daan nañ toog trois mois cin du fa tàkk yonent bi alei salatu wasalaam ànd ak ñoom ñu dem ci benn kër ku ñoo umu xaas kii abu xaasim bi ñu ñëwee fekk fa soxla caamin bu yew bi yonent bi ñëwee ci buntu kër gi daa dina asalaamaaleykum soxna saa ngi ci gannaaw buntu bi mu ne teg ñu toog ñu yonent bi ne asalaamaaleykum soxna si ne teg bi yonent bi nuyoo ñetti yoon kenn wuyu ko mu dellu mu ndax sëñ càmm baa xam nga ne loolu mooy sunna ci kër bàyyil mukk ñi nga xam ne ñëw këng këng këng ha salaamaaleykum déedéet boo ñëwee kër jàmbur da ngay taxaw ci bunt ba salaamaaleykum mi ngi noonu buñ la wuyoo wuyu la buñ la wa defee ñetti yoon kenn wuyu la nga dem ba yonent bi di dëpp nag soxna si daal di génn daa ji ne ko ah mu yàlla yónni dégg naa sa premier nuyoo de dama bëggoon ñaan yi bëri ci ñun gis ngeen soxna si yeewoo ngoog mi ngi noonu bi borom këram ñëwee daa di dem ci tàndarma yi daggal leen fa ay car dem ci ndox mu neex da rootal leen ñëw jox ñoom yonent bi ak abubakar ak omar ñu lekk ba suur naan ndox mi bi ñuy génn mu ne ah xiiwal gi yàlla daan nañu ko laaj yowmal qiyaama de ba ñuy jóge suñu kër ànd ak suñu xiif tey ñun ñi ñëpp lekk ba suur yàlla daan nañu ko laaj de looloo tax ba mbokk julit tàmmal heure booy lekk waxal bismillah boo paree nga ne alhamdulillah sant sa borom yàlla lépp looy xeeb ci lekk am na ku koy wër mënu koo gis lépp looy xeeb ci lekk am na ku ko am mënu ko lekk kon su la yàlla wër sëgalee loolu nga bàyyi ci xel bu baax rawatina nag xéewal yi nga xam ne moom yonent bi da kaa tudd mooy li ñu xéewal yàlla dana la ko laaj am ci nag ñeent yi mu tudd bokk na ci li mu doon wax sa alal ji foo ko jëlee foo ko def sa xam-xam bi loo ci jëfee sa ndaw gi mi ngi noonu sa dund gi yooyu yépp da ngay gis ne borom bi subhanahu wa taala daf la koy laaj yowmal qiyaama loolu moo tax ba ki nga xam ne dafa xel lu dëgg dëgg dëgg fu mu mën a toll day bàyyi xel la yonent bi waxoon Muaz ibnu Jabal ne ko Muaz yow dama laa bëgg ci Muaz xaale la woon bi yonent bi bi bi muy faatu 33 ans la am Muaz yow dama laa bëgg lool foo jullee ba pare na nga wax allahumma a inni ala zikrik wa ala shukrik wa ala husni ibadatik e yàlla yàlla nag ma jàppale ba ma lay fàttaliku lu bëri yàlla nag ma jàppale ba ma lay sant yàlla nag ma jàppale ba ma lay jaamu jaamu gu sell loolu nga la waay buñ ko fàtte niñ koy ñaane yàlla yàlla na yàlla defal ñu ko
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله فيكم suñu borom subhanahu wa taala mu ne bismillahi rahmaani rahim wal asr borom bi mi ngi waat ci temps jamono yépp innal insana la fi xusr doomu aadama day mi ngi ci pertaange illa alladina amanu wa amilu salihat lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm cay jëf-jëf yu yiw ya wa tawaasoo bil xaq ñuy dénkante dëgg seen biir wa tawaasoo bi sabr di déggan dénkante la nga xam ne muy ak muñ bokk lii mooy suratul asr bokk ci saar yi gën a gàtt ci alquran donte ne ni imam shafii rahimahullah doon na wax ne law ma anzala allahu xujjatan ala xalqihi illa suratul asr la kaffathum su doon yàlla wàcciwul alquran lu dul suratul asr mu nekk lay ci seen kaw dana leen doy bokk suñu borom day waat ci jamono lan mooy jamono mooy le temps le temps ci la doomu aadama di am ci lay ñàkk ci lay wér ci lay feebar le temps ci ngay am jàmm ci ngay ñàkk jàmm mboolem seet temps yooyu yàlla di jaara di la jaarale léeg-léeg mu nattoo la yiw léeg-léeg mu nattoo la lu naqari ainsi de suite temps boobu yépp suñ borom yàlla mi ngi ciy waat muy wane it ni doomu aadama dafa war a ittewoo temps jamono boo nekk nga xool mbaa maa ngi ci loo xam ne mi ngi may jëriñ ndax suñu borom nee na doomu aadama ca mooy la ëpp ca ñoom lu dul ña ci yàlla génne ci fin bi ñi ngi ci pertange mbokk yéeféer dundam gépp pertange la ma xoolal ko xëy à partir de peut-être quinze ans ngay dang dangi di liggéey di dajale di yéeg di wàcc sa naaru jahannama mooy sa wàcc waay kooku perte waay perte nañu seen lépp pertange la waaye nga la waay yu julit bul mel noonu moo tax borom bi subhanahu wa taala ne lu dul ña nga xam ne dañoo gëm mbokk ña nga xam ne dañoo gëm mooy ña gëm la yàlla subhanahu wa taala gëm lu lépp te mooy gëm lépp loo xam ne yeneen ci yàlla muhammad indi na ko loolu mooy gëm loo ca weddi rek ak lu mu néew néew bokkatoo ci ñi gëm donte ne ne pile ya ko téye moom mooy gëm yàlla gëmi malaakaam gëmi téeréem gëm ay yonentam gëm ay dogalam gëm yowmal qiyaama loolu mooy lii pilier waaye bu dul loolu lépp lu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi julit da koo war a gëm moo tax mu ne allazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad mooy nga gëm lépp lu yonent yàlla muhammad indi borom bi nee na lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm gëm guñ bokkaalewul dara waaye nag boola cay def lu baax mbokk lan mooy al amalu salih al amalu salih mooy lii bi nga koy jëf sunna moo ko jàngale te bi nga koy def def nga ko te yàlla tax looloo tax ñaari jullee ngi nii jege yoo lool takkusaan léegi lañ ko julli quatre raka lañ ko julli kenn du wax ci kaw jant bi sono ñetti raka la ñu julli ñaar yi ci kaw benn ci suuf lu waral loolu mooy lii moom la islam tëral muy muy lu baax mais boo defoon contraire bi tey naka lay demee mooy li nga waroon julli timis nga julli ko takkusaan li nga waroon julli takkusaan nga julli ko timis ñun ñëpp xam nañ ñu baaxul kon loolu moom leer na léegi yow julli nga sarxe nga aj nga màkka te lépp bi nga koy def dafoo ko lu dul nit ñi di la ci gërëm ak a tagg loolu it ba tey baaxul kon al amalu salih fokk mu am loo xam ne ni da nga koy def bi nga koy def yàlla rek tax nga koy def te bi nga koy def daa dëppoog sunna ñaar yi bu ci manqué rek jëf bi baaxatul mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne lu dul ne ñooñu def loolu di dénkante la nga xam ne mooy dëgg te mbokk dénkante dëgg bi gën a màgg mooy dénkante ngëm ak jëf lu baax alxaq mooy al imaanu saxiix wala amalu saalix képp koy dénk dëgg dénk ko bu mu bokkaaleeg yàlla képp koy dénk dëgg dénk ko mu topp sunna mooy te surtout la nga xam ne mooy biddaa biddaa kiy def biddaa yàlla tax mu koy def naam lu bëri ci nitu biddaa la ñuy def yàlla rek a tax ñu koy def foofu nag la seytaane kontaane ñu ngi noonu ñu nekk ci biddaa ba ñoo ko gënal ñu nekk ca baar ba ndax ñu nekk ca baar ba xam ne ñi ñu def baaxul ki nekk ci biddaa nag day ñaan yàlla rey ko ci li muy def yàlla rek a tax te yàlla du ca nangu dara lu waral loolu mooy dëppawul ak sunna kon njëlbeenu watawaasoo bil xaq mooy ñu dénkante ci topp sunna dénkante ci wéetal suñu borom waaye yet watawaasoo bi sabru as sabru wax nañ leen ko ñetti xaaj la as sabru ba def ndigalu yàlla yeeg tere yi julli yeeg koor yeeg aj makka yeeg zakat yeeg yooyu yépp dafa laaj muñ waaye as sabru ba bàyyi yu xaram yi njaaloo yaag carte yaag jëw yaag yu demee noonu loolu lépp dafa laaj asabru waaye asabru ci dogal yi yàlla di dogal sa kaw feebar yaag ñàkk yaag jaaxle yaag tiis yaag yeneen ak yeneen ak yeneen yii yépp doomu aadama dañ ci war a dénkante muñ soo déggee sa mbokk julit doom ja dee na nga dem laayu ko biir ko xamal ne yàlla mi la may doom am na ñoo xam ne bu ñu sañoon xam fu ñu suul seen bàmmeelu doom te mas naa jaale ji benn soxna daje faak beneen soxna bu koy wax mu naan ko muñal wallahi su ma xamoon ne ci kaw suuf place sàngam suul nañ fa sama doom danaa kontaan sëy naa xaw ma ñaata at musuma am doom yaa ngi dégg kon nga muñ loo ko ci loolu kee alalam yàqu muñ loo ko ci loolu képp koo xam ne nii julit la nattu dal na ko nga ñëw wax ak moom ba delloo si xelam ci tuyaaba yi gën a rëy la bokk ci tuyaaba yi gën a rëy bokk na ca mbokkum julit nekk tiis nga dem fekki ko dalal xelam looloo tax mu bokk tuyaaba ju rëy seetu ko feebar nit ki feebar nga dem seeti ko xamal ko ni lii du dara dalal xelam jàppale ko ci lañ ko mën a jàppale rawatina loolu it lu gën a am solo ci dimbalante ci muñ mooy waaji ba soxla mooy nga am loo ko te jàppale ci feebar nga ñaanal ko baax na lool waaye ordonnance yi tegalu ci kawam nga ne bu xët dara jox ko mu dimbali ko loolu it watawassaw bi sabr la bokk mbokk ñi nga xam ne kon ñoo matalee ñeenti yi ñii dong ñoo perte keneen ku dul ñoom yaa ngi ci perte te mooy al imaanu saxiix al amru salih wa tawaso bil xaq wa tawaso bi sabr yal na yàlla matal ko ci ñun ca nangul ñu ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤقدة في عمد ممددة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم سن بروم مني ويل لكل همزة alkan gañeel na ci képp kuy ayibal nit ñi ci ay jëfam ci ay bëtam wala ay loxoom lumaza di ayibal nit ñi ci làmmiñam allazi jamaa maalan wa addada kookee nga xam ne ma ngay dajale alal rek di ko lim yaxsabu anna maalahu axlada daa di jàpp ne alalam joojee kat dana ko saxal ba faw kalla déedéet la yumbazanna fi lxutama moom day dañ ko sanni ca sawaras xutama mooy lay moxoñe wa ma adraka ma lxutama lu lay xamal loolee nga xam ne moom mooy moxoñe naarullahi almuqada mooy safara si yàlla samu sañu taal allati tattali'u ala al afida sawara boobu bu nga xam ne dana takk ca kaw xol ya mi ngi noonu innaha alayhim musada loolee en dana nekk ci lu ñu tëj ci seen kaw fi amadi mumaddada ci ay kenu yoo xam ne nii yu leen wër la doon yu ñu tàllal mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fi ci doomu aadama yi nga xam ne li leen itteel mooy saboote seen mbokk doomu aadama yi saboote boobee nekk ñaari saboote saboote nit ki ci lu jëm ci wàllu addunaam saboote ko ci bi ci ci jëmmam saboote ko ci ay la nga xam ne nii melokaanam ak i jëfam ak i deme noonu wala way juram wala li deme noonu mbokk loolu lu bon la mu bokk nag loo xam ne nii moo gën a yiis lépp mooy saboote ko ci wàllu diineem mi ngi noonu saboote ko ci wàllu diineem loolu lañ doon jàng ca waylu lil muttafifin ca mooy képp koy saboote ci diineem yow saboote woo ko yàlla nga saboote ndax li muy def yàlla ko ko sant soxna si ngay saboote ngir ma ngay muuru jeune bi ngay saboote ngir bàyyi nab sikkimam ñee nga nekk di saboote ndax na nga ca jàkk de di jàng kaza wa kaza xamal na saboote woo leen yàlla ngay saboote loolu moom c'est moom mooy la nga xam ne alag doomu aadama bi doomu aadama nag sabooteem dana ko defee ñaar da ngay gis nit koo xam ne day piis nit ki gis noo xam ne nii dafay mel wane ci ay jëmmam loolee dañ koy tuddee humaza donte ne lumaza mooy la ngay def sa lammiñ loolee mooy tafsir ba gën a digg doomu donte ne ni am na ñuy firi humaza mooy ki nga xam ne dafay ayibal nit ki fekk mi ngi teew lumaza kay ayibal nit ki fekk nekku fa de manière générale daal ñaari baat yépp li muy firi mooy koo xam ne day ayibal doomu aadama yi ña leen di ayibal ci seen wàllu adduna ña ngay tooñ def bakkaar waaye nag ña nga xam ne nii dañ leen di ayibal ci seen wàllu diine ñooñu ñoom tooñu ñuy seen borom lañ tooñ mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ni kooku nga xam ne mooy def loolu lu ci bëri mooy doon borom alal ndax mbokk borom alal bu ko yàlla dimbalu rek mu xeeb jaam yi ndax doomu aadama yi ngir bëgg mu dimbali leen léeg-léeg dañuy ñëw di suufee ci kanamam loolu nag borom bi mu ni ma ngay dajale alal di ko denc mooy li ñu waxoon sànq dajale alal pas pour projet loolu l'islam bañu ko même boo doon dajale un milliard jublu ci lan ubbi benn société bu mag bu ndaw ñi di liggéey ubbi jënd lu mu mën a doon luy jëriñ doomu aadama islam bañul loolu amma nag dajale alal ngir compter alal mi ngi noonu di dajale rek loo xam ne wóor na la ne lii moom ittiwoo ko waaye jàpp rek ne comme yow am nga alal léegi tu es en sécurité gars yi ñu bëri loolu lañ fa day gis patron yu bëri chaque année dañuy dem Europe def bilan général ci seen yaram fu ne médecin yi seetal leen ko ba defe ñu la yow moom baax nga doo dee feeg déwén waaye boo koy wax la rek yaa ngi dégg loolu da ngi noonu am na ñoo xam ne wala chaque année des millions la ñuy dépenser pour bilan général xeeb nañ xeeb nañ Sénégal Occident lañ koy defee borom boobu nag ne alal jooju nga jàpp ne moo la fi saxal déedéet bal bis dana mës a ñëw noonu ngay doon dajale alal joxoo ko doomu aadama yi da dajale ñu boole laag sawara boo xam ne moom it luñ ko jox moo moom mu xañu ko léegi gis ngeen oto mbalit day bu taxawee gis ngeen buñ ko sànnee pañe yeeg saako yi lu ñëw rek machine bi lay ñëw moo ñu dugal ci biir sawara it noonu lay def xootama lu ko malaaka yi ba max ci ay milliards mu ne hël min mazid dolli leen ma waay hël min mazid mi nga noonu na nga doon dajale alal noonu ngay bokk ci ñi sawara di dajale borom bi mu ne waaw lu lay xamal sawara xotama boobu mu ne sawara si yàlla la boo xam ne yàlla moo ko taal doy ne rek ñu ne naarullah sawara si yàlla mi ngi noonu muuqada boo xam ne nii dañ koo taal nga xam ne lakk-lakk ba day yegg tatalliu day dem passé yegg ba ca xol ba mbokk doomu aadama foo amee métit sa xol moo koy yëg waaw bu dee xol ba ci boppam moo lakk nag moom doomu aadama lakk ba xolam di takk ñu ngi noonu xol ba di lakk borom bi subhanahu wa taala nee na innaha alayhim musada sawara soosee dañ koy tëj ci ñoom ci ay kolon yoo xam ne yu ñu guddal la te mooy foo xam ne xalaatu mukk foo dawee wala foo rëcc hatta kaso àdduna yi rek mi ngi noonu te ji bokk na kaso yi ñim yéen muy lu mel ne camp pénal boo doon dugg tey bala ngaa yëg ci prisonniers yi da nga traversé quatre portes quatre portes da nga ko traversé avant nga yëg ci prisonniers yi sawar sa àllaxir it noonu la ko suñu borom defee mooy mu nekk loo xam ne nii ku fa dugg kenn dong la fa mën a génn muy sa borom jàll waala waaye xalaatoo abadan noo xam ne nii noo fay génne te it doo fa dund doo fa dee mbokk julit dama jàpp ne incha allah la nga xam ne mooy desatu saar yi ñu bàyyi ba suba ak jàmm incha allah dam bi su àjjuma bi ngireen ñu mën cee jeexal téere borom bi ñu doon nafar depuis at yi yépp di ñaan yàlla na yàlla na yàlla nangul ñu di wax Cheikh Ousmane Dieng jazakallahu xayran yàlla na ñu yàlla boole dëppale ak ngërëmam te may ñu ñu dëppoog téere bi yàlla bi ci di ko jàng ci di ko nafar ci di ko jëfe wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain naam i fàttali rek ne qiyaam yi nañ ko doon defee dana commencé une heure du matin insha allah naam naam bismillah naam naam julit bi nan lay boole liggéeyam ak qiyaamu layl suñu borom subhanahu wa taala nee na yàlla xam ne ne am na ci yéen minkum marda wa axaruna yadribuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah wa axaruna yuqaatiluuna fi sabilillah yow yaay xool sa liggéey nam tëddee su ko defee sa qiyaamu layli noonu nga koy tëddee soo jàppee ne su ma taxawee guddi gi yépp di ko naafila su ma demee sama liggéey duma ko mën a matal su boobaa am nga ñaari choix man nga def say naafila ba boori deux heures nga génn dem liggéey wala nga nelaw ba boori deux heures nga ñëw ala kulli xaal bu dee xool nga naafila yi ñuy def fii moom en général ba commencé une heure du matin quatre heures du matin mu jeex ça fait juste trois heures de temps su ko defee daal da ngay xool nañu xam ni liggéey bi rawatina bu dee liggéeyub jàmbur loolu àq la boo xam ne nga jox ko àqam da ngay jël ci guddi gi rek lu méngoog loo xam ne da nga mën a jox àq liggéey ba su dee taxaw guddi gi du la yàqal liggéey ba su dee loolu amul nga xool loo ca tax loo ca taxawee bañ koo neenal nag ndax suñu borom dane faqra'u ma tayassara minhu malgré que xam naa am nañuy jihaad am nañu feebar am nañuy liggéey faqra'u ma tayassara minhu seetal la méngoog sa situation nga taxaw ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam kii moom day wax ndax koor gi la nga xam ne moom mooy ay pâte dentifrice ak ay socc da koy yàq yaakaar naa tontu woon nañ ci mbokk bu dee socc moom yàqul koor hatta bu dee bu tooy ba tamit yàqul koor lu dul lenn ci borom xam-xam yu koy sip bu dee ne bëccëg bi jot na waaye almuhim yow daal boo ci jubluwul di muuco ndox ma di di ko wan xanaa daal da ngaa jublu socc ko si yàqul koor amma mu des la nga xam ne mooy pat maadaama pat dentifrice manes na koo utiliser avant fajar manes na koo utiliser après ba nga dogee la gën mooy ñu def loolu ndax yéen ñëpp xam ngeen ne pat bi boo ko dugalee sa gémmiñ raxas ko ba mu set loolee lu xaw a jafe la lool mi ngi noonu donte ne ne bu dee mën nga ko raxas ba mu set kenn du wax day yàq la nga xam ne mooy sa koor kii moom dafay laaj waaw bu dee ne da ngaa dajeeg ay douane yi tey jii ñu jël nangu ay ay ay ay ay mbir ci nit ba pare may la ko ndax yow da nga ko jël déedéet mbokk loolu doo ko jël loolee ñu nangu moomuñu ko alal ji nit ki moomul bu la ko mayee doo ko jël alal ji mu liggéey ci lu xaraam bu la ko mayee bañ koo jël moo gën donte ne araamul nga jël ko waa ji demoon gañe paye bi nga xam ne daa gañe paye mu may la bañ koo jël moo gën ki jaay sàngara bañ koo jël moo gën caga bi jaay boppam bañ koo jël moo gën mais alal ji moo ko moom boo ko jëlee dagan na donte ne bañ koo jël moo gën mais ki nga xam ne daa jël alal ju moomul di la ko jox alal joojee amoo droit di ko jël mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bu dee am ñu beneen question kon mi ngi noonu kon mbokk ah naam kon du wàññi bi moom bu fekkee ñu ngi nangu seen alal moom lu waa moo ko wane moom liggéey boobu la waa liggéey douanier su dee ne dañ koo tëral ci yoon nga xam ne ni état bi ñay ciy xalaat ñëpp dañu xalaat la nga xam ne mooy àq bi yàlla tëral ci ay jaamam ñu tëral ne réew mi kat bëgguñu ko fi dugal nangam loolee nga xam ne nii dañ koo tëral waa réew mi dañoo war a topp ki nga xam ne mooy amir ci loolee mu tëral di intérêt général bu ñu tëralee loolu moom la nga xam ne moom lay nangoo ca waaja dafa war a nekk intérêt réew mi dañ koo war a jël delloo ko ci trésor public mais pas mu koy nangu di ko yóbbu këram wala mu koy nangu di ko may keneen loolu daal kon ñu xam ne l'islam dàqul douane problème bi rek mooy ñiy tëral douane bi nañ ko tëralee da ngay gis lu ci bari am na ci lu dëppoog l'islam am na ci lu dëppoowul ak l'islam bépp tëralin boo xam ne dëppoowul ak na ko l'islam gisee amul kenn ci jaamu yàlla yi ak grade boo mën a am buy jël di ko am droit di ko tëral ci jaami yàlla yi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam mbokk julit kon subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk